please xool li ma du maire tous les mois ci compte TikTok bu mairie de Khombole ñëw leen xool ñu waxtaan échanger ana nan ngeen bëggee Khombole ñu koy gérer ana nan lañ koy gérer ak lan ngeen soxla ci information ñu waxtaan dans un débat relax sur TikTok Instagram et Facebook dans les différents comptes de la mairie de Khombole et de nos comptes personnels Magueye Boye bu ngeen ñëwee le tic du maire rendez-vous tous les mois en live sur deux heures de temps ngeen connecté wu ñu waxtaan de manière relax ngeen ñëw